di ko ñaanal mu wér rek mu wér ak jàmm rek jóg ak jàmm rek loolu laa koy ñaanal génnal na leen son nag lu bees tàkk mu ngi génn si si coupe du monde bi surprise lay doon léegi mu génn semaine bi rek ñu kilip ko. lu yooyu la ñu am moom la ñuy tiitaroo ku mel ni Sadio Mané borom Bambali li yooyu rek la ñu am ba ba ñu Sénégal kontaan ma li yooyu ngàcce ngaa sa kaw sa kanam. kookoy borom Bambali. borom abidje sikije kasamay borom abidje sikije sikije ki sikire cakacakite borom abidje sikije borom abidje sikije mooy borom Casamance kookay Sadio mu wér Sadio bul tiit da ngay jug ak jàmm bul déglu waxi fii ko doo dem waaw waaw wuy ma wuy ma Youssou Euh, Youssou yow yaa ngi ci game bi xëy na fan yëpp amoo jot yaa ngi yaa ngi studio mais xam nga ni joueurs yi kii tey tey ku mel ni mooy ki dëkk maintenant rek Saliou Ciss bi gi ma tudd Pathé. Pathé waaw xam nga Pathé Ciss. yow Pathé Ciss dama bëgg na nga wax ci Pathé Ciss ndax moom suñu xarit la yoo xam nga loolu Pathé Ciss fu mu fu mu ñu fekk defal ñu teraanga yow surtout yow dalaa bëgg ak ñoom Fada waaw léegi dama bëgg yow yow nga wax léegi ci Pathé Ciss nga ñaanal ko. Pathé Ciss damay ñaan mu gañ a lekk si sëñ Ba xale ba am fu mu ñu fekk teral ma man Tamba dama bëgg mu am ndam lekk ñëpp am ndam ñu jël ndam lu ñëwaat loolu lañ bëgg. ñun dañuy dem bu soobee yàlla semaine bi dañuy dem man la Pawlish Ouzin xamaguma de maa it keroog woo nañ ma studio ma dem waaw bu Youssou laay déglu rek. mais Youssou. mais Youssou mais xanaa mais xanaa gars yi mais di ngi leen ñamal tuuti ci mooy ci morse bi. mais dama rek benn acapella rek mais dama bëgg rek de réparation bi kis ki rëdd kàcce ki rëdd kit ki de réparation bi bi ñëwal de réparation surface surface ay waay sur papa raso raso ah. bi bi ay waay tey li waaw waaw kii nag ki ngeen gis nag kii mooy Youssou Ndiaye moo xew ci jamono waaw di xale bi nga xam ne macha allah ah moom moom moom moom moom mooy yëkkati musique musique comédie bi waaw. mun naa ko waaw waaw nuur laay namp yi mais. Eh, yow feccal nuur la jamul mooy borom nuur la eh, yow namp yi eh, yow jàppal bi borom. eh namp yi eh xale yow namp yi eh bi borom nuuru la boo demee si jawil mooy borom nuuru kit kit tat ubres kit kit tat gépp ah, ñu waa yëngul waa Youssou mais Youssou feccal leen bàkk bi mais Youssou Youssou ñëwal daas mbatas ah urat ki kit kitat urat ret ki kit kitat gis gis uren gigis ren gida to ren to bache ki gid ah ki gid ki kit ki kit ki gid ah gid gid gid gid we we doit waaw waaw nag kooko nuru laa waaye nag waaye nag dama bëgg nag nga ñaanal lion yi yàlla may ñu yàlla may leen jàmm defal leen ndam ñu am ndam yow tamit yow tamit yow tamit boo demee kara boo demee Qatar mën fa toj léegi wuyul wuyul Alaaji Bàcc nee na Sénégal ñan la bokk ko def Sénégal ñan la bokk. dégg France. France. ak ak waa Qatar. waa Qatar ak ak kan. ak kii waa ah. waa Bénin. ak Bénin. tout Bénin. waaw waaw waaw. suñu per gi noonu père Saliou. waaw Serigne Saliou lañ la tuddee. yaay borom njurul borom njàppandal yaay suñu baay. yaay ñu yar yaay ñu ngénte Saliou yaa ñu tere yalwaani yaay magu Tamba suñu baajo la ñuy jooy te noppee borom yaay ju baax du mun a bon xanaa xamal lu one yaay sama peet na nga ma jàppal dina baax moo tax dina baax lépp yow a waaw waaw ci waaw tàcc na loolu waaye borom Deta TV télé bu xew si jamono eh foo koy seetaanee man Viviane maa ngi seetaan Deka TV yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi connecté wu people, hein? Ah. DKTV. connectez-vous